loolu li muy yàgg-yàgg ak li muy am am solo ak li mu laaj lépp ci ay jumtukaay ak i moyens xaalis sa koy def loolu waral na tey fépp foo xam ne état senegal Sénégal fay yóbbu ndox ci askan wa askan wa am na lu ñu leen warul ndax loolee ñu leen warul donte ndox mi ndoxam yàlla waaye fam nekk des ko fay jëli bu dee ci dex la ne da koy canaliser mu dem bu dee ci suuf la ne da koy gas soo ko gasee danga ko génne boo ko génnee danga ko canaliser yóbbu ko yooyu yëpp mu laaj ay moyens kon li ñu bëgg nii bëgguñu ko ngir ay ñaari fan wala ñetti fan dañ ko bëgg mu doon lu war a continuer lu war a wéy te loolu kon faaw xalaat fan la ñuy war a jëlee li xaalis boobu ak moyens yooyu nga xam moo ko mën a wéy loolu nag yitte la ñoo xam ne kenn ku ne am na ci aw yoon kenn ku ne bu ci kenn xeeb boppam kenn ku ne am na ci yoon ma defe ne lii nga xam ne monsieur le wax na ko léegi jëme ko ci ñi nga xam dañuy jëfandikoo ndox te di ci wut am koom ñooñu waruñu woon a xaar sax bañ leen di laaj dara man noonu dama defe ne li war <clears throat> mooy ñu posé leen ay compteur lu ñuy jëfandikoo ñu fay man defe naa loolu day lu munta ñàkk du lu ñuy sax négocier wut baaba war su koo négocier kee xam ne lii ci lay tedd ndox la mu wóor ko ne lam ci utilise moom pour tedd mu ngay jëlaale wàllu ay junniy nit ca yam ca ñoom képp àq defe naa ne loolu war na ko fay loolu la xel war a mën a naw kon loolu it ñi ngi def appel ñi woo ñëpp képp ku nga xam yaa ngi yëngu ci ca nga xam ne la ngay yëngu da ngay jëfandikoo ndox ci ah, lu ëpp lu ëpp ci ni dëkk ci kër yi di ko jëfandikoo ca nga ci wut xaalis dara di la ci génnal na nga jàpp ne dañ laa war a tegal compteur lay génn ci ndox ma nga di ko xam di ko natt di ko fay loolu nag daa bokkiwut ak dara li xam daf noo boole muy àq ca kenn ko ne kenn oblige yu ci kenn kenn ku ne yaay xool na nga ca mën a doxe nga doxe ko ci ni loolu it ñu ngi ci woo ñëpp xebuñu ci kenn mu mel ne monsieur le préfet euh, yàq maire ak seen équipe yëpp nag muy équipe municipale bi muy l' administration locale OFOR ñëpp Touba ci kanam association yi ñëpp ñu ngi leen di sant ci mbir mi waaye nag ñu ngi woo association yi fi nii yëpp moo xam commerçant la moo xam bonne volonté nga te nga xam ne problème bii problème bu taxaw la mu ni joon problème boo xam ne kenn ku ne si ngi ci problème boo xam ne ku ci def sa yëfit xam nga ni ca def ko ci ngir yàlla xam nga ni da nga ci jot ëllëg ndax yitte yi ju mat yitte la ci ñëpp jaami yàlla yëpp nga ko defal jëlal naa waa Touba mais jaam yàlla yépp nga ko defal kon loolu ñu ngi ci woon ñëpp ah dafa am nag ay mbir ñoo xam ne xëy na ma ne su ko wax ma ne su ko tay wax ndax problème mu liggéey la méthode la euh, pexe mu ñu war a taxawal pour li ñu am ñu bëgg ko li ñu bëgg li ñu bëgg def ci yëf ñu man ko am ak fan la ñuy séentu mbir mi bëgg mu egg fa yooyu xëy na ay xalaat la waaye nag man jort naa ni wax ci aslëf dana tax ñi ñuy waxal ca yaakaar ne mën nañu indi seen apport ñu xam ambition yi ñu am fan la toll ñu xam ne Touba day màgg di dem production bii ñu wax dëgg la sunu techniciens yi def nañ ci njàngat mu am solo waaye volume de production bi ñu joxe. mënuñu jàpp ne volume bu juste la ndax manquement yi mu àndal ndax bu fekkee dañu wax ne am nañ 35 pour cent ci équipement yi ci jumtuwaay yi nga xam ne doxut kon loola faw mu nga xam ne lañ war a produire matu kon ministre te joxe benn évaluation bu juste par rapport ak loolu kon lii war a doon suñu jiite fi mu ne mooy lijjanti ba équipement yi nga xam ne xam nañ ne dafa manqué wala amul ñu réparé ko yi amuloon ñu amal ko bañ jàpp ne fonctionnalité bi am nañ ko au moins à quatre vingt dix neuf pour cent wala quatre vingt quinze pour cent ñu soog a mën a jéem a def une évaluation plus ou moins juste defe naa loolu day lu nga xam ne mënut te ñàkk ci mbir mi kon dañuy projeté rek waaye lii ñu def nag dana tax ñu xam fi ñuy teg suñu tànk. daa tax ñu mën a xam suñu yitte fan la toll te man dama def ne mbirum ndoxu Touba mi dafa am problème ponctuel bu ñuy bu ñu bëgg a régler waaye nag buñ ko régler dañuy war a xool ci suñu kanam fañ jëm mooy ni ma ko waxee léegi rek ndax li fi aj li nga xam ne tey waroon nañ tey village bu bees buy buy sosu wala judduwaale forage loolu ñu ko am bu ñu jàppee ne état bi dañuy lu fi fu am forage fu lépp dañu ko fay defal kon war nañu jéem wutal suñu bopp ay forage forage pourtant ay machine rek koy bënn machine yi koy bënn dañ koy jaay war nañu mën a am Touba Maou Rahmati war a mën a am équipement bu bu bu war a mën a def liggéey boobu di bënn ay forage ci dëkk saa su jàppee na barab sàng war na am forage loolu war na mën a am kon suñu gis-gis ñun foofu la egg dañuy jàpp ne dañu war a mën a dem ba lu ëpp ci forage yi xam ne Touba da koy yittewoo duñ ci mën a duñ ci duñ ci xaar état bu boobaa fa ñuy xaar état dana ci sawar pour ñëw fekk suñu ci loolu nag sunu biir ak sunu organisation ak sunu xalaat ci lañ ko mën a amee moo tax ñu ni ñu ngi woo ñëpp li ci des mooy ñiy soññi effort aussi dañ koy soññ dañ ko teg baaraam di ko ñaan it mu jàppale nu ci mbir mi ndax moo nu ci mën a jàpp mooy cadre bi ñu taxawal programme bu jógee ci OFOR jëm si Touba nañ ko xam cadre bi ñu taxawal entreprise buy intervenir ci na ñëw jaar ci ñun ñu mën ko contrôler loolu sax ndimbal la waaye nag exigence la population yi ñoo ko laaj dañ ko soxla dañu exiger képp koo xam ne entreprise nga yaa ngi intervenir Touba gagné nga fi marché na nga jaar si ci cadre bu ñu xam ne ngay def lan la nu mu toll ak fu ñu koy def ñu mën ko contrôler loolu ñu ngi koy euh, bàyyi ci loxol sëñ joox euh, bu ko defee ak ñoom Bamba dañ ko jàllale ah sëñ Sidi wax na ci lu bari mooy suñ comportement seetaat ko nañ seetaat suñ comportement bu baax ndax mbir bu la yombee eh, ca ba tax toppatoo woo ko xamal la bari na ñum jafe ci jotuñu ci ceet yow moom yomb ba tax toppatoo woo ko bis boo ko ñàkkee jàpp ne nit la ko xañ ndoxam Tuubaa mi kenn xañu kenn kenn ku ne yaa ko xañ sa bopp parce que kenn ku ci ne xam nga ni am na noo ci war taxaw ci taxawoo ko loolu na ko nit ñëpp dégg loolu nag bàyyiwuma ci kenn pour sociaux yëpp laa boole kenn ku ne ne jàpp ne ndoxum Tuuba bu manqué yaa tax mu manqué bu jiñ kenn ne moo mu tax ndox mi manqué kon nag nañ xoolaat ñun suñu comportement waaye nañ xalaat suñuy pexe ca mën a déployer suñuy moyens yi ñu am ñu mën koo gérer de manière vraiment man koo teg ci aw yoon woo xam ne yoon wu wér lay doon wu leer luñ ci def kenn ku ne xam ko xam ne ñëpp alal yi ñëpp la ñëpp a koy xoolandoo moo mel ni mbir mii dafa laaj saytu ci saa ne waaye nag dafa laaj it communication bu communication bi dafa war a wëy loolu nag mi ngi tàmbalee ci relais yi chef du village ñëpp responsable bu fi ne rek am nga. am nga liggéey ci lii waaye nag sunu mbokki xayra yi ñu ngi leen di félicité ndax initiative bii ngeen jël bu ñëpp doon xalaate noonu duñ jàmbat ndax fi mu ne saaga yeeg njàmbat li bari te kenn jéemu dara te ñooñee commencé di wax kenn ku ci ne war na jàpp yëg ne ci ñi tax ndox mi manqué ci nga bokk te ñëpp bu ñu defoon ni yéen ndox du manqué wala du manqué na ni mu kon nag effort yooyu ngeen def masala la ci ñëpp képp ku dëkk ci dëkk bi rek loola war nga ci bàyyi xel war nga ci bàyyi bët xool nan nga mën a taxawale lu mel noonu parce que bu lijjantiwul sa problème yi yëpp dana dimbali ñiy lijjanti problème yi waaye nag ñi ngi leen di ñaan lu mu ci mën a doon ñu organiser ndax am naa samay moyens nu ma ko neex laa koy defee lu tax yëf yi réglé ndax bis boo demee ba jaaxle ci ñi xam ñoom ngeen di woo ñu ñëw la kon nag dafa war a am canal bi mu jaar dafay jaar ñu ñu encadré leen accompagne euh, ànd ak yéen ci ci liggéey bi ba ngeen am ci li ngeen bëgg loolu rek la amoon ci lu ñu wax monsieur le préfet euh, ci li am li nekk daal ci gàttal mooy ñun am na yaakaar ñu ngi rafet njort bu baax gëm nañ ne bi ñu sëñ bi santee lii ne danañ danañ ci am ndam loolu lañ gëm waaye nag buñ daagu bu ñu naaw ndax sax man àdduna moom gisuñu fi sax lu jar naagoogun ndax naagu moom ca tugut façon léegi ñaan monsieur le maire rek di ko féliciter ci engagement yi nga xam yépp respecté na ko xam naa donte ne sunu 36 personnes yooyu amoon na defe naa ñoo xam ne ba léegi kiigun leen ñu ngi la koy fàttali ba xam dana mën a ne wala du mën a ne. ah 32 la woon waa 32 ngeen jël def naa 26. waaw 25 suppléant yi lañ jël. suppléant ok loo loolu. loolu bëgg naa ngeen ngeen seetaat ci daal taxawuñu ci ndax du wàññi dara ndax loolu boo gisee man mu bëgg nga taxaw ci. mooy xale yi euh, ci dëkk bi lañ dëkk ci euh, am nañ xam-xam bi bu ñu amul diplôme am nañ xam-xam xam nga wan ma saw kayit ak defal ma li nga man bokkut ci it bu ñu leen ko joxuti dañuy wuti faneen liggéey ci liggéey moom ci mën a dimbali sa morom kon rek bay boo dimbali ci man maa ngi la koy ñaan loolu vraiment ngeen jàpp ci xale yi liggéey parce que dañu war a liggéey bi ci des bi ci des mooy feeg màggal gàtt plan bii ñu am nii c'est un plan ambitieux xam nañ ni <coughs> xamuñ mun sax mun ma mun wax ne feeg naa ngi mi naa ngi mi kii mais de façon feeg màggal am na lu fi mën a ne ki fi mën a ne nañ ko xam teñ daal di ci jublu parce que amuñu temps bu ñu perdre waa tubaa ci kanam yi ñu ngi leen di ñaan fépp fu nga xam ne maire bi nee na lii fii màggal danaa ko fi def laneen lu ñu fi soxla ci loolu bokk ci bilan boobu automatiquement yéen jël nañ jox nañ leen loolu di leen ñaan yéen a ngi taxaw bëgg nañ daal feek màggal li fi mën a li fi xaj lépp ñu mën ko def incha allah ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom mu dool nu sàmm dool nu suturaal ci dimbali nu nag amul saa yu bàttin. amiin